doomu aadama bokk ci mbindeef yi suñu borom gën a fonk waral bu génne àddina ñu wormal ko yóbbu ko ci armeel yi jébbal ko suñu boroom mu doon lu sacré bu ñu demee nag ba profanation maanaam dem ci bàmmeel yooyule di fa def naka sudul noonu doonee mbir muy bëgg lëmbe dëkk bi askan wi seeni xel jaxasoo na mu doon nag lu ñuy ñawlu muy sama yaay muy yaay ku mënti doon ah buñ ñu ko defee teguñu ko fenn fuñ ko wara ték état nak moñu wara jappalé ci lolu jël ay mesures hamni sévères da c'est pas la première fois. aduna jaruko moy ay cadeau yi nga xamni ki di mama Nafi di ab talibé mu mbir mi tambalé dépassé. lolu mom ay ñaawteef la rek ndax ay ñaawteef la ndax mom ni to xamanteni ni nga aduna ñu sutural la ba jënk la ci sa bammel fofu la waaye dem fa di def ak lu àdduna jaral jaral jaral jaral waroo yegg ci loolu tey sax fa ñu dal moom dafa yéeme lool ñun ñu koy naqarlu bu baax a baax a baax ñun taalibe ak bépp jullit moo koy naqarlu ndax euh, kooku ñu ko def soxna su yiw su baax soosu jur ku tedd kii nga xamante ni mi ngi fii ci kaw suuf ñu def ko noonu ah kooku def loolu daal ñi ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla toroxal yàlla na ko yàlla weer ndax loolu moom ñaawteef bu mag a mag foofu la ñaawteef yam waaye doy na waar daal ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax. dafa nekk jëf joo xam ne jëf ju ñaaw rafetul ndax bu ngoon lu toll ni bàmmeel bu soxna soo su nga xam ne yaayu waajuru ku tedd kooku hmm, ñu doomu aadama am xolu dem ba ci bàmmeelam di ko profané def fa lu nekk. di yàq fii wala di fa jël ay yoo xam ne moo du leen jariñ dara dafa rafetul surtout ci jullit dafa rafetul sax ci doomu aadama laay wax dafa rafetul ci doomu aadama waaw ndaxte bon ñoom ñu koy yooyu ñu fay def pour lan la ay problème sacrifice ak yu demee noonu rek bon yooyu yëpp mën naa ñàkk nit ki day gëm yàlla suñu borom bon ñooñu ko def nag kuñ ci jàpp dañu war a jël teew ay mesures yu sévères yoo xam ne exemple lay doon pour ëllëg ku ko bugg a defit sa xel bu demee ci ñoom man nga yàlla mën naa def yàlla mën mën na li cee génne daal man nga koo bañ a def mais nag bon to yooyu yëpp aussi problème gardien gardiennage ak yooyu yëpp kooku liggéeyu maire bi la maire de Touba maire bi moom moo war a jël moo war a moom moo moom la euh, mbir moomu so solool daal waaw Touba du Touba rek sax armée yëpp a ci bokk ci ndax fi mu ne affaire bu pop yooyu ñuy def léegi ci profanation yi dafa bari ci réew mi léegi lu léegi armée yu nekk war na am ay gardien bu mënta am ay caméra de surveillance war na am ay gardien yu mat bu yu bari bu ñuy yendoo ñuy fanaan parce que fi mu nekk problème sacrifice yi ak yooyu yëpp dafa bari te ñi ci ëpp léegi ci armée bi la ñuy dem mën nañ jël exemple ci yeneen gis ngeen yaayu def nañ ko fi yaayu benn mbër ah du ma jaar ci tur mais bu mu ne yaayu benn mbër ñu bari nañ ko xam def nañ ko fi du kooku rek def nañ ko fi yeneen gis nga tey waa kër sëñ Abdou Karim ah def nañ ko jaayam def ko xamu porte parole sëñ Fallou bi xamu lanu sëñ Fallou encore bu nelaw ah yooyu yëpp ñu dem seen bàmmeel yàqate foofu lañ fay jël amuñu ñu fa jëlee lu ñuy jaay lu leen di jariñ affaire fétiche rek moom lañ fa mën a def te yooyu nag mën naa ñàkk yooyu yëpp mën na ñàkk dama koy njëkk a ñaawlu ba pare rafetlu wuñ ko quoi en tant que jullit ndax pour man tamit armère moom bu ñëwee ba koy dindal di suli ay néew yoo xamante ni gaañu woon nañ li yàgg rek man pour man léegi ñu ngi nekk beneen monde boo xamante ni man benn essence doo xam noo ko mën a tuddee quoi vraiment. waaye loolu ndamu àdduna jaru ko teraangay àdduna jaru ko ndax yow mi koy def après est-ce que di nga am conscience tranquille que ne yow ndam lii lii laa def moo ma ko may alal bi lii laa def moom ma ko may loolu dara jaru ko si àdduna yàlla ku mu bind moo ñaale la ko bindaale na sa wërsëg ndax fa mu koy bindee ci sa biiru yaay dafa foor ci àdduna mënu la kaa xaj li nga war a am escalier la ala kulli aalin da nga ciy dox di ci dox du ci dox ba li nga fi war a am jeex nga wuyu sunu borom kon dara jarul lool si àdduna. kii di baara Fall di ndawi dëkk bi bokk na ci li ko gën a metti li mbir mi xewee fii ci tuubaa di dëkk bu sell ci réewum Sénégal muy xamle ni nag lépp ñàkk sécurité moo ko waral. en tant que Touba moom euh, li may wax rek yaa tudd de laisser ndax tamit bon dafa am loo xamante ni su amee ci dëkk état boo ci war a jug ndax population mënul faj fajal boppam. ndax loolu population mënu ci dara li mu mën rek mooy wax ci xalaatam joxe ci seen xalaat mais maanaam fee ji yi mu amee population bi mënuñu ci dara lu dul rek dem ci état état moo war a wàññeekuwaat population bi teg leen loxo jàppale leen ci loolu ndax tamit armeel war na am benn paa nga fay teg bu néew ñëwee mu sang ñu dajale benn benn pot jox ko xam nga après su ngoon jotee mu dem këram day tëdd nelaw mënul yennu ci armée yi ba ngoon jot muy fanaanee xoolee nit kese la état moo la ci loolu ndax état moo ñu njabootu ñu ñëpp xam nga man centralisation bi ñu doon wax fan la féete dañuy wax décentralisation ku ci nek commune bu ci nekk yaa sa bop xam nga kon normalement lolu mairie mo ci wara juk mairie nak état moko yor moko coiffer armée bu ci nek ñu def fa ay caméra de surveillance tek fa ay nit yu doy di leen outal salaire di leen fay weer ndax ñu fa teud xeyna peut-être ay nit ñu génn àdduna lañ mais tamit ci société bi lañ bokkoon quoi doon fi servir ñi ñu jot a tàllal suñu mikro di ñaan nguur gi mu teg ci ay daan yu méttee metti ngir képp ku xalaata def ñaawteef yu ni mel sa xel delluwaat ci daan yi la ci mën a fekk. Ah, daan yooyu kay moom kooku kay moom bis bu ko yàlla feeñeelee ba ñu gis ko war nañ ko teg daan yu mag a mag a mag a mag ba bu ëllëgee ku ko dégg na liñ ko def dootoo ko xalaatati ndax mbir mi ñaaw na ñaawlu nañ ko bu baax a baax a baax a baax. ñii di askan wi nag joxoñu ñu baaraamu tuuma ku dul nguur gi ndax ci seen xalaat war nañoo jël ay matukaay teg jéego yi war ngir mbir yu ñaaw yi mën fee jóge sanction yi ñu ci war a jël moom lañu ñu jëlul de un de deux war na ci dox war na ci def ay jéego yu rëy. waaw état war na mën a endosser responsabilité euh, argent kii plutôt armée li utal ko ay gardien yoo xam ne ñii dañuy veiller le jour ñii laa nuit maire maire bi aussi commune bu fu armée nekk rek y'a maire maire boobu aussi war na mën a ut ay gardien yoo xam ne ñooy ñooy veiller ñooy toppatoo sécurité armée li armée du question que dañuy ñëw rek denc bu ñu dencee rek pare na ndax léegi lu nekk la ñuy gis ñu ko ciy def. Euh, liñ ci war a def kay mooy cimetière yi ñu def ci ay euh, vigile yu sérieux yoo xamante ni dañuy ne ci buntu ba bu ñuy xëyee wàcc ñiy gont fanaan fanaan su ko defee ñi nga xamante ni ñooy def ñaaw defee duñu am benn accès pour dugg si biir di ci mën a def dara ndax booy ñëw di def si ñaawteef ñëw nit na la eh, looy ut. xanaa bu boobaa dootoo fu mën a am jotu def ñaawteef yi dañ fa war a def daal sécurité daal lañ fa war a def bu foor a foora a yoon moo ci war a teg loxoom yoon bu ci defee loxoom nag ci kaw loolu mu jël ay mesure am ndax kook bu ñu jëlee sanctionné ko tamit bu subaa keneen defaat ko bu ginnaaw subaa keneen defaat ko day dem mujj gi def bi day fee bi day bari ndax ñi koy def di rëcc moo ëpp ñi koy def di feeñ ñi rëcc moo ëpp feeñ la fuuf ñi rëcc par par exception la kon loolu mbir man lépp état laa koy delloo rek mbiru état la moo ci war a jug jàpp ci jël ay caméra ni mu defé ay caméra surveillance ci ay mbedd man ko mo defé ci ay armer dem nga Sénégal rond-point bo dem légui ay caméra surveillance 5 fois ta ken nekku fa yar rien loolu ñu ko defé fo war ko mën defé ci armer na armer mo gëna a nekk priorité que mbedd surveiller ko dafa ay gardien di len fay utal len salaire di len fay fay bu baax ñu surveiller ci veiller ci lépp ci lo xamanteni affaire doom adam ñu veiller ci ndax Touba mom vraiment état war na ci wax jàpp ci na amna lo xamanteni euh population mënu ko fajal bopam état rek mo ci mën dara man lo rek na kissé waaye sii dem ba amatul yaakaar ci nguur gi jël lépp teg ko suñu loxo boroom ay kàddoom yu mujj doon nag lu waay rendi ci sa loxo lay naaj. sëriñ bi daa wax ne dellan fàttaliku yetti mukk yi ñu ne ko yetti mukk yi mooy lan mun a àdduna ku fi jóge du fi jël si mukk yow man xayaam ku fa dem du fa jóge mukk lépp lu way amutoon ci lu baax du ko am ba mukk yëf yi nag dara néew ci lu may mën a amila saaleen fële nafsi yi lu waay jëf sa bopp ñi ne ci bàmmeel yeeg ñiy dox ci mbedd meeg ñooñu ñëpp kenn ku ne suñu borom daan la jàpp ba nga yaakaar ne yow dong la yow dong la bindoon loolu dong mooy affaire bi kenn deful kenn dara ken deful kenn dara lu waay def sa bopp loolu waaye maanaam koo def sa bopp def defuñu kenn déggoo li ma la wax xanaa mën a amila saaleen fële nafsi yi lu waay jëf sa bopp wax bi dafa jeex muy yow yaa ci biir man maa ngi ci biir journaliste bi maa ngi ci biir lépp lu ngeen def te nga xam ne ko ci yoon suñ borom daan la wan na la lii yaa defoon ndax bu ëllëgee dañuy kaste sa nopp yi kaste sa bët yi kaste tànk yi ñu leen di laaj ñuy wax soo waxee soo defee loo xam ne ko su ñooy wax nga naan ko ah, man xaw ma lu mën a ah, yaa ko yaa sa bopp seytaane mii ñuy tooñ naan seytaane seytaane seytaane deful kenn dara suñu borom da koo may mu yóbbu sawara sawaraam aljana ku mën a jël yóbbu sawara yóbbu la bu la fa dugalee nag naan ko xaw moon nii a demee mun a yaa teg sa bopp yaa topp ma sa bànne sa bànne ko bakkan loolu yëpp ñun ci ñu ngi ci biir maa yow ak ñëpp waaye ma affaire état moom sama yoon ñëwut ci loolu